professeur ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw maa ngi leen baax a baax di la sant. <laughs> dalal tey jii nga xam ne euh, bu ëllëgee dinañu euh, màggal bés bi ñu jagleel euh, maanaam ñu duppee ko journée internationale de la langue maternelle tey Sénégal fu ñu toll ci jàngale yooyu langue maternelle. justement voilà léegi maa ngi lay gërëm Elisabeth di la sant. Mm. ci question bi sax mm-hmm. langue maternelle langue maternelle waaw. la la langue nga jëlee ci sa yaay. Mhm. la làkk wi nga euh, doonoo ci sa yaay. Mhm. waaw mais euh, làkk woo doon ci yaay mën na doon làkk boo xam ni ci biir kër gi mooy làkk boo xam ni moom la ñuy wax xale bi màgg ci ki koy nàmpal di ko laaj yaayam di lakk làkk woowu woowu làkk làkk bu jëlee ci yaayam moom la wax langue maternelle. Mhm. Euh, loolu mën na mën na doon loo xam ni dañ ko jël noon rek pour tuddee ko làkk li nga xam ne moom la xale bi njëkk a eh, eh, njëkk a xam mhm. eh, mu jëlee ko ci biir kër gi mais mën na doon doon làkk li nga xam ne moom la yaay ji indi parce que bu dee yaay ji daa doon séeréer baay ji pulaar ci biir kër gi su suñ làkkee séeréer làkk yaay ji lay jël mhm. mais bu dee dañoo jël pulaar bi papa ci làkk nga xam ne moom la ñëpp di wax ci biir kër gi xale bi nàkk ci loolu mën nañu wax ne bi njëkk ci moom mooy pulaar bi te doolu langue paternelle mais comme ñun dañoo jël euh, turu maternel tuddee ko rek làkk njëkk ñu donc da nga war a comprendre ne baat bi mën na doon bañ doon rek làkk mu jëlee ci yaayam mm-hmm. mais làkk li nga xam ne moom la ñuy làkk ci kër gi moom la ñëpp di wax xale bi màgg ci euh, gis euh, yeewu ci àddina ci bi ci làkk woowu mm-hmm. donc kon moom la min léegi mm-hmm. Sénégal ba mu amee indépendance même balaa indépendance liggéey na ci lu bare bare bare ndax euh, bo bo fi nekk nii euh, ex euh, lu ñuy wax naan jéem nañ def nañ ay jéem jéem yu bëri bëri mooy maanaam jéem a seet ci biir yenn écoles yi buñ ko ci dugalee lan lay joxe depuis indépendance gën gaa néew def nañ ci lu ma yoo xam ni dugal nañ ko ci ay école ñu ñu jàng ci ba yegg ca ca ca njeexintal ga ñu daal di leen xayma mais xayma yëpp li mu wane mooy jàngee ci seen ci sew làkk mhm. wala nga njëkk a jàngee ci sew lakk mooy tax xale bi euh, njàng mi yomb ci moom mu mu mu gën a gaaw a dem ci kanam mhm. loolu loolu loolu loolu xayma yi wane na ko gëstu yi wane na ko mhm. tey ji Sénégal tey ji Sénégal fu ñu toll ci njàngale mi ci université yi rawatina waaw université yi moom ma université Dakar moo fi jiitu ba ñuy njëkkee ubbi université Senghor ma nga xam na moom daa gis-gis la teel a defar léegi yaa ngi ma wax léegi ne man centre de linguistique appliquée de Dakar laa nekk. Mhm. moo doonoon fi nga xam ne fa lañ doon tëggee yoon yi méthode yi ñuy jàngalee làkk yi. donc wala ak séeréer yëpp dañ ko dugaloon ci classe fii la daan départ mais am nañ fi département linguistique boo xam ne ñoom gëstu la ñuy def. Mhm. gëstu pour làkk boo xam ne kenn mësu cee gëstu pour wax nan lay doxe yan baat ak nu ñuy tëggee baat yi loolu mooy seen liggéey ñoom science la ñuy def. léegi nag loolu nag science boobu mais war naa wax laboratoire si bu IFAN ñoom bu ñu paree nag ba def ay ay grammaire def ay ay dictionnaire def ay thèse def ay loolu ci la eh, état bi gouvernement bi di sukkandiku pour nag ne làkk wi pour ñu bind ko nii lañ koy bindee mooy maanaam jëlee ko ci làkk wu ñuy wax kese daal koy yóbbu ci làkk woo xam ne mën nañ koo wax mën koo bind. Mhm. donc loolu mooy codification. Mm-hmm. loolu loolu Sénégal fi mu ci toll moom alhamdulilah rabbil aalamiin ndax ñaar fukki lakk juróom moo fi nekk ñaar fukk ñaar yëpp léegi war nañ ñu koy bindee wutal nañ ko am mbind euh, ba le président de la république de yi nga xam ne moom la war a jël ndax pour nga pour ñu mën koo dëggal il faut président de la république signé décret pour wane ne décret wolof lii la nii la ñuy bindee baat yi ni lañuy ñuy grammaire bi nii lay tëddee Euh, nga xam ne léegi ñëpp day doon loi ñëpp dañ ci dañ ciy tënk bu la neexee sax mën lan mooy codification euh, voilà code code loolu mooy mooy wutal làkk wi am mbind mbind nag dafay dem bu ñu bu euh, professeur université xool nañ làkk bi ba xam ñaata woy moo ci nekk mm-hmm. mooy maanaam li ñuy tuddee woyal ci ci ci français mm-hmm. wala baat consonne liñ seet ñaata consonne moo ci nekk ñu daal ne léegi consignes yi nii lañ koy bindee ñu d'accord ci léegi niñ koy codifier mooy état bi euh, toujours day xaar ba ñiy làkk euh, làkk wi su dee séeréer ñu ne ñi ñiy làkk séeréer ñu ñëwal seen bopp ci état bi ne léegi ñoom dañoo bëgg seen làkk ñu bind ko mm-hmm. léegi bu ko defee dañuy wut ñoo xam ni ñoom seen xam-xam daa màcc ci loolu ñu toog Euh, xool ndax jot nañ ci def ay liggéey ci université bi liggéey bu doy. Mm-hmm. bu liggéey bi doy ñooñu dañuy toog ànd ñi nga xam ne ñoo ñoo bokk ci xeet woowu. Mm-hmm. ñu ñu ñu seet nag ñoom nan lañ koy bindee ñu daal di jël li ñuy wax naan lettres yi yii lettre bu ne euh, wax ju ne lettre bu koy bind. bu ñu tànnee lettres yooyu mooy doon nag li ñuy tuddee alphabet ci français làkk su ko defee nag ñu xool nag baat yi ñu leen di tàqale. loolu buñ ko defee ba mu yegg ñu tënk ko ci benn benn benn këy ci la ñuy nag woote yaatal nit ñi ci ñi ci war liggéey waa communauté bi ñoom daal di jàpp seen bis boo xam ne bis bu rëy lay doon ci ñoom ñu ñëw nag daal di li nga xam ne moom la comité technique ba defar ñu daal di koy valider ñëpp nangu ko noonu la codification di demee. Mhm. mooy yóbbu làkk bi ci mbind. mbiru ñi ko moom la ñi moom làkk wa du mbirum état. ñoom ñooy ñëw wane na bëgg nañ ko bind seen laaj état bi daal di ñëw nag indi ay borom xam-xam ànd ceeg ñoom ba làkk am mbindam. Mhm. loolu su ko defee boobaa nag ñu daal di nag euh, président de la république doog nag daal di siife nag xaatim nag décret boo xam ni ci la ñëpp di tënk. Mhm. tey jii euh, gis nañ ne sànq yaa ngi joxe exemple euh, làq séeréer euh, tey jii séeréer si donte buñ ne séeréer mais dialecte bi dina am différence ah, kii na muy làkkee keneen na muy làkkee waa tey jii ñu gis ne Sénégal bëri na li ni mel bëri na tamit ay ethnie yi fi nekk ndax tey du liggéey bu bu gën a yaa mooy xaar tey autorité yi gis ne tey codifié nañu yaa ngi koy wax vingt cinq langues ñu limee li fi nekk yépp ci ethnie euh, donc euh, ndax liggéey liggéey bi leen di xaar dina yemb xam nga xam nga loo gis rek xam-xam moo koy def mhm. li wax science te science day dox ci li ñu wooyee principe mooy ci yooyu tënku ak doxalin mooy méthode science moom mooy régler lépp ci loolu kon amul lu ñuy xaar lu bëri senegal kay li bari mi ngi ci gannaaw ndax soo jëlee làkk yi nga xam ne dañ na codifié nañ leen ba pare ñoom su dee par exemple da ngaa jël wolof ji nga xam ne moom laa doon mm-hmm. xam nga wolof am na wolofu Saalum am wolofu Kajoor am lébu loolu yëpp ci biir wolof la nekk loolu moom mooy li ñuy wooye ay dialecte ak ay ay ay ay kii mais Sénégal moom yoon yu mu jël pour lool yëpp mu bañ ci am benn jafe-jafe mooy buñ duggee ci benn làkk ñu ne léegi dañuy codifier Joola mm-hmm. wala dañuy codifier wolof wala pulaar xam nañ ne am na ci gox yi ñi ñu koy waxee niroowul dañuy jël nag dañuy dem recenser dajale lépp waxin yépp lañuy ñuy dajale xool baat yi xool voyelles yi ci nekk xool consonnes yi lépp ñu dajale ko duñ ci bàyyi benn hmm. benn lañ du bàyyi léegi ne bu ñu leen xoolee ñoom ñépp dañuy daan léegi ci biir làkk bi de am na consonnes yi ñu ngi ci voyelles yi ñu ngi ci maanaam Uh, baatu coow yi nii baatu yi yëpp a ngi ci biir. Mm-hmm. léegi ñu boole ñoom ñëpp dëxañ ci biir document bi kenn du sànni benn boo jëlee wolofu Ndakaar wala wolofu Kajoor booy wax amul amul h lii France tuddee h. Mm-hmm. boo bu dee Saalum dañ koy wax soo Saalum Saalum dañ wax ay àkkatey la lay wax wolof bi ne moom ay ay la lay wax ay àkkatey mais h boobu nga xam ne Saalum da ko moom. bañ ko bàyyee di gis nañ ne am na lu ñu bàyyi ci biir te dañ ko dugal ci biir parce que am na ci ci variante yi ñuy tuddee variante de la langue wolof benn variante bu utiliser as donc as daa war a bokk ci lettre yi donc pour te dire que duñ bàyyi lenn moo tax diversité bi ak làkk yu bëri yi ñun jaaxaluñu ndax soo appliqué science daal dangay am yoon léegi science nag moo ñu woon ne da ngay jël yëpp ci biir su ko defee kenn ku ne la nga soxla nga cay jëfandikoo ndax kenn ku ne sa waxin yow la concerne ndax kenn mënul imposer kenn waxin mm-hmm. nit ku ne yaa sa waxin groupe bu ne yaa moom sa waxin gox bu ne yaa moom sa waxin kon dañ leen di bàyyee seen waxin mm-hmm. daal di koy décrire maanaam ñu ñu nataale kon nam nañ koy wax su ko defee kenn du mer noonu la ñuy gérer diversité. Mm-hmm. kenn du mer parce que kenn warta mer te kenn tuutiwul kenn ku ne la nga nekk da ko koo fonk donc ku la ko tuutil nga tuutil ko moo tax kenn warta mer mm-hmm. te waruñoo benn kenn bàyyi kenn gannaaw te amul benn variante wala benn làkk bu ñu war a jàpp làkk wu tuuti wala làkk bu mag mm-hmm. loolu Sénégal doxal lim loolu tey jii est-ce que euh, lii nga xam ne mooy jàng làkk yi nga xam ni moom lañ nàmp euh, mm-hmm. ndax dina euh, doon wala sax dina am benn impact ci suñu développement loolu moom science at ci àddina bi bu mbërëngal képp ñi nga xam ne borom xam-xam lañ ci doon ba wane nañ ko ba pare jël ay xale jëf ko ñu gis képp kuy jàngee si làkk yow yaay gën a gaaw yaay gën a sori mais da ngay jël français ñun école bii liñ ci daj kenn xamul tool milliards yi ñu ci def kenn xamul tool boo ñu dugg primaire CI ñu yegg si université daanaka du mat cinquante pour cent du mat vingt pour cent. Mm-hmm. Mm-hmm. vingt pour cent yooyu ñi ci génn ba ay dix pour cent lay doon maanaam boo jëlee téeméeri xale. daanaka ñi cay yeggal duñ mat dix pour cent duñ mat fukki xale loolu nag wane ne na kon làkk bi am na problème léegi lañ ci jot a def yëpp dafa wane ne xale bi jàngee ci làkkam ne tax mu gën a gaaw am yoo xam ni ca seen euh, daara yu suufe yi mooy primaire bilinguisme mooy def mooy seen làkk lañ jàngee ak français dem nañ topp leen secondaire ñu nga ñu nga ay euh, sixième cinquième troisième terminal Mm-hmm. ñoom ñoo gën a baax ci biir classe te jàngatuñ ko ak ak wolof ñu ngi koy jàngee français mi ñu gën a raw seeni morom mu wan na ne kon jàngee d'abord jiital njàng mi ci sa lakk wi ngay làkk dafa am lu muy def loo xam ne dama la jox rek lu tuuti loo xam ne waxuma koon ci français boo dugg école mm-hmm. juróom-ñaari at nga wala juróom-benn yooyu at yooyu wala juróom-ñaari at yooyu yaa ngi woon di di dox ci addina bi di gis àddina bi di jëfandikoo àddina bi ci saw làkk loo bëgg a def ci sa làkk nga koy def loo ci saw làkk nga koy def xam-xam bu dul jeex ngay am balaa ngaa dugg école may wax toujours ne man dama ba ma doone xale daan rëbbi dem di def la chasse di rëbbi man xamoon naa luy arc de cercle nga defe dañ defe ne suñu làkk yi moo munuñ koo wax xamoon naa luy luy luy luy luy luy xamoon naa liy droite parce que bu ma daan rëbb bu bu lëg gi tëbee danaa xam fu mu koy xaar ndax lëg buy daw arc de cercle gi kon daanaa natt bu baax noon naa natt ci sama balaa muy dugg école mais boo yegsee école day naan la loolu teg ko suuf juróom-benn at yooyu sànni ko nga dugg école ñu dem ba sem de ci ngay soog a mën a dégg français soog cee mën a commencé waat di xalaat addina bi juróom-benn at ak juróom-ñaari at fukki at ak ñett wala fukki at ñaar yoo xam ni dañ koo sànn ci àll bi nga am ko tardement tardement ci xel yow nga dem ci ci tubaab ya ñoom ñu yar leen ci seen langue bañ juddoo ñuy wax seen seen langue maternelle dugg euh, adduna bi ci seen biir kër ak seen quartier ñu ñu ñu ñu di ko gisee ci seen langue di ko xamee ci seen langue ñu dugg école continue seen langue euh, science ak lépp ñu koy jàng seen langue yow nga ñëw fekk perte nga. fukki at ñaar nga toogandoo kook ci benn bande da nga koy raw xam nga ne loolu bu raw amee rek ndimbalu yàllaa nga ci wala jinne nga <laughs> kon képp ku fi doon professeur d'université wala nga doon fi médecin wala nga doon fi leen wala yow moomu sax journaliste bi xamal ne yàlla ndimbalu yàlla dëgg moo la topp mais warul woon waroo woon a yegg foofu. d'accord te loolu euh, dafa am lu ci ànd de lu méttee méttee. mooy ñu ngi ñun yor ay ay li ñuy wax naan ay métti ci xel ay parce que dañoo am ay gaañu gaañu yoo xam ne du wér mukk ndax boo dugg see ko rek ñu ne la bàyyil li nga li nga xam bàyyi li nga naam naqar lay doon métti ci xel nga nekk di jànkonteeg loo xamul man dem naa ba yegg professeur d'université dugg am yooyu cëppeelu France ci laay soog a xam garab bu ñuy wax sapin te ba ma nekkee primaire lañ ma doon wax ay sapin ki pin musuma ko gis xam nga ne loolu metti na. d'accord feebar boobu mooy jur nag mooy mooy tax mu mel ne ñun amuñ xam-xam wala muus ñu te fekk kenn gënuñu muus. d'accord loolu mooy problème langue maternelle. professeur Mbacké Diagne merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf Elisabeth. merci maa ngi lay remercier man maa lay gërëm.